moom lañ tabb présidente bu bees bu OHADA kuréel gi tax ñi mën na méngale yorin gi ci wàllum koppar gi fii ci Afrique. maître ay Tall sàll ministre de la justice xamle na ni luñ ko dénk lu am solo la tax na dina ci def lépp lu war ngir ñoŋal weccoo gi ci Afrique. leneen lu ñuy xaar ci Sénégal mooy acte uniforme yi acte uniforme mooy sart yooyu ma daan wax nga xam ne bu ñu ko jëlee rek réew yooyu yëpp day nekk seen sart bopp donc loolu. am si loo xam ne liggéey bu am solo bu ñu commencé def ci wàllu DIP DIP nag mooy droit international privé loolu wàll bu am solo la ci yoon donc comme ñoom def nañ ko ñu ngi xaar ci Sénégal loolu mu mën a sottil ko mu mën a yemb. ay ata ngi nii mu mel ni rek jafe na ngir ñu amal ndaje diggante njiiti réew yi ak chef de gouvernement yi loole nag ki di présidente bu bees bi xamle na ni yéene gi moo ngi fii ba léegi. fukki at ci ginnaaw maanaam njiit yi tooguñu waxtaan seen biir ba soppi réviser lu ñu woowee traité de Port-Louis mooy ki traité bi samp OHADA kuréel bi samp OHADA donc président Macky Sall dina def kemtalaay kàttanam pour njiitu yooyu ñu mën a toog ñu mën a càmbar mbir mi xool fan lañ si toll ak liñ si war a yokk wala liñ si war a wàññi. OHADA di yombal njaay ak njënd teg si di yombal lépp lu investissement wante rek mu mel ni bari na lool li des ci wàllu wile. les défis. jafe-jafe yi nga xamante ni OHADA dina ko daal di am dana woy naam nag faaw ñu daal di koy wàññi ngir rek lël bi nga xamante ni taxawal nañ ko mu daal di mën a jariñ ñëpp ni yeneen lël yi nga xamante ni nag ñoo ngi fii. international. passage de témoin am ci anam bu jaar yoon diggante Sénégal ak République démocratique bu Congo. maître ay Tall Sall nar ko jiite fii ak at.